waaw ñu ngi taxaw ku ñuy wax Lasga ah, ñu ngi koy fekk fii si répétition Ngaaka Blindé bi mais eh, Lasga ñu ngi lay fekk fii euh, day lan moo war a euh, day sa taxawaay fii. Euh, d'abord maa ngi nuyu internetu Sénégal yëpp di la nuyu ek sama taxawaay fii du leen lu dul Ngaaka c'est un frère. Ngaaka c'est un frère boo xamante ne lu mu nekk rek ñun dañ ciy nekk looloo waral tey répétition beeg événement bi lépp lu muy demee ñun ñu ngi ci biir quoi. vraiment moom lu mu nekk ñu ngi ci. mais ok sànq léegi man maa ngi dégg si répétition bi moom mu tudd sa tournée mu ne Las Ga. Uh-huh. seen diggante romb na la ko nit ñi di xalaatee. waaw comme romb na diggante entre artistes wala ak influenceurs rek yooyu noonu vraiment am nañ ay relation yoo xamante ni léegi dépassé na lool quoi et moom nekk na nit boo xamante ni nit bu baax la bu dul dara ñoo bokk géejawaay xam nga ñoo bokk lépp et moom Baye Fall la ñun ay Baye Fall lañ moo tax ñu mën a def quoi moom c'est c'est une personne boo xamante ni il est naturel moom dafa naturel quoi nga xam gaynde ah, ok soo xoolee moom mu ngi préparé événement ah. eh, événement bi. moom y aura beaucoup de surprises ek que événement rap boo xamante ni Ngaax mu ngi koy waaj bu ko defee sa ça sera une première fois mu nekk événement boo xamante ni rappeur moo ko teg mu am son am lumière organisation bi et que Ngaax dafa innové indi na ba indi ay table un million comme nga xam ni loolu tey c'est c'est une initiative boo xamante ni moom teg na ko mu nekk loo xamante ni dafa garaaw. c'est c'est la première fois mu am ci hip hop Galsen quand même. mais tamit est-ce que euh, waaw non incha allahu rabi dinañ ko duy ba ñuy nekk ci biti. ñooy ëpp ñuy nekk ci biir et que dinañ ko recommander nit ñi dinañ dem bay bëgg ngaa xam ne di tëgg chaque un mois. défi la waaw ah. man affaire bi défi non affaire bi incha allah yéen toog leen ngeen ngeen resté scotché ngeen xaar ngaa ko blende Esplanade Cissesse dina ko def nu ko nit mësul def waxuma la rappeur mais nu ko nit mësul def incha allah le 11. voilà Laska ñëw si TikTok. waaw Laska la ma la dugg si TikTok. waaw TikTok moom c' est c' était quelque chose bu naturel gis gars yi di ko def ñi ñu ci jiitu ay yenn nit yi nga xamante ni ñoo ci nekk ay ñoo ci nekkoon ay El Prési ay Dadeg yooyu noonu ñooñu influencé à ce que ñu dugg ci et que biñ ci duggee tamit rëccu wuñ ko quoi vraiment ah naturellement lañ ci duggee. waaw di voilà soo ko les réseaux sociaux yi. ñii di informer ñii di wax leneen yow nga choisir cas. waaw la moo tax la moo tax nga choisir cas. non mais cas bi man dama koy jël comme yéen Sénégal. da di joxe ay information yoo xamante ni la ak yooyu mais man sama kaa cas bi maanaam dafa nekk benn mot boo xamante ni boo déggee cas day day day attirer attention en fait moo tax man sama actualité people ni ma koy joxee ma tuddee ko cas en plus dama ciy dugal humour kenn du mer et nit ñi dinañ informer wu à travers mes pages à travers mes plateformes loolu rek la ah. Ah, voilà soo déggee kañ dañuy fekk ne Lemotif la vidéo Lemotif yi moo ngay partagé wala. non non man je partage pas ça en fait am na koo xamante ni bokk nañ tuuti ka muy benn gaan bi nekk ci réseaux sociaux yi moom sax léegi nee na wàññi na man su ma nee cas mooy information. mooy ah. waaw ah, muy benn waay quoi bëgg ma eh, <laughs> def. promo non xaw ma xaw ma bëgg ma def promo du ma tudd turam quoi vraiment mais nekk na li ma nekk di def nii da ci dama ci boole humour et dama ci boole benn touche boo xamante ni kenn du mer et que du kenn people rek laa joxe ko man people. Euh, voilà mais soo waxee people la majeure nga dugg sa vie privée nit ñi est-ce gars da nga dugg si vie privée nit ñi wala. waaw man tax sama people sax dafa léger quoi pas comme ay Sénégal ak yeneen ak yeneen a yeneen. Ah. yi nga xam ne jeune moom parfois da ngeen di génne yoo xamante ne mais c'est normal quand ah. parce que nit yi nga xamante ni la plupart du temps ñoo choisir genre nekk ay ay ay publique wala yooyu noonu et que mënuñu bañ ñuy wax ci ñoom. mënuñu ko bañ loolu moom boo ko tànnee muy man muy keneen a keneen ak keneen boo demee ba tàmm siw risque yëpp mu ngi ci biir quoi comme comme avantage yi ni mu ci amee noonu la ci inconvénients yi amee moo tax loolu mënuñ ko bañ waaw eh, voilà Lascap nekk information da nga koy joxe en exclusivité exactement balaa may génne information boo xamante ni koy dugal samay page c'est vérifié Sénégal dina ko dugal wala keneen ak keneen ak keneen mu nekk information yoo c'est vérifié man ma ciy soog a jël wala sénégalais yëpp jot ci ba commencé ma tàgge sax sur les réseaux sociaux Lasga Lasga affaire yooyu noonu ci laay commencé ñëw wax ci vite fait dugal ci humour waaw mais y a pas mal quand même ñu ngi koy ñu ngi koy dund quoi. ñu ngi mais am na ñu bëri ñoo xam te ni comprendre nañu contexte ñuy defee kaay yooyu noonu. moo ci dugal ak informé. Euh, voilà soo xool réseaux sociaux yi tamit. da def ni comme man moom li may ni. keneen dina ko mën a def quoi loolu lu ma yàlla may la. waaw lu ma yàlla may la man moom cas yeeg information people yi may traité yooyu noonu moom. mais oui ma dafa mel ni cas yi mu ngi dox parce que moom yaa ngi yaa ngi yaa ngi door sa oto yaa ngi sañse yaa ngi yaa ngi dem ay voyage quoi. waaw waaw mais sant yàlla rek alhamdulilah quoi sant yàlla parce que tamit ñun nit di xëy di dem bureau nit ñi dañu war a nangu ni réseaux sociaux nekk na benn air boo xamante ni mën na ibil nit porte bu nekk et que yàlla mu ñuy ibil ñu ngi sant yàlla quand même ñu ngi sant yàlla bu baax. waa Lasga yow. e dañuy gis yow da ngay publicité Xbet pourtant influenceur yu bëri. dañ uh-huh. koy rejeté mais yow da nga kaa accepté. man damay publicité Xbet quoi man damay publicité Xbet et que jël naa samay engagement di publicité Xbet et que ñi nga xamante ni ñor na leen ñu ngi joué Xbet ñu ngi jël samay code moo ñu ngi koy joué mais man je vois pas que ni genre boo xoole ay télé ñu ngi fi ñu ngi fiy publicité Xbet et que Lonase kañ la fi nekk yàgg na fi ak yeneen ak ak yeneen. donc képp koo xamante ni bëgg na jouer dina jouer koo xamante ni tey jàpp na ni peut-être jugé na loolu que ni nekkul lu baax peut-être du ko jouer quoi. mais mais mais tamit est-ce que nekkul des influences négatives euh, man est-ce que nekkul influence négative c'est euh, ce qui est followers non mais man je dirais pas quoi parce que da ngay fekk booy ñu nekk ci et que parfois c'est c'est juste benn benn affaire boo xamante ni da ngay promouvoir rek. et que ñi nga xamante ni bëgg nañ ko ñu ngi koy def que sa soit nga publicité ko nga ñàkk publicité booy dañuy découvrir yooyu noonu yëpp. et am na yeneen yoo xamante ni ñu ngi koy promouvoir moo gën a bon xbet tey gars yi ñu ngi koy promouvoir média yaa ngi koy promouvoir kenn waxul donc xbet man je juge pas que ni vraiment nekk na loo xamante ni dafa graw quoi vraiment man d'après boog ci man et ku nekk ak ni ngay gisee man noonu laa gisee quoi. waaw ah, ah ok las ka mais sa benn interview gisee nga naan dafa am ah, ay artistes lay fay. ndax nga yàq yeneen artistes loolu c'est dëgg la. artiste yu may fay pour ma yàq yeneen artiste interview non ay yeneen nit quand yoo xamante ni euh, peut-être dinañ la jox ay information nit comme ni nga ko waxee sànq ay cas ay vidéo ala yooyu noonu man nekkuma ci lool man juste people laay def ak humour li ci des vie privée yi nga xamante ni c'est privé privé ak nit yi nga xamante ni kenn xamul leen vraiment man du ma touché loolu quoi vraiment ba mu fayoon un milliard du ko jël mais mais tamit est ce que tamit euh, cas yi mos nga si am jour quoi nit fekk la agressé wala dóor la wala menacé la. mais sant yàlla quand même cas yi bu commencé def ba léegi gis naa ni tamit euh, vraiment nit ñi ñu ngi koy jël positivement quoi gars yi ñu ngi koy jël di kaf di fo di ree di commentaire mais nit mosuma ci def dara xanaa am na benn sëriñ bu ne woon damay porter plainte daal. ban sëriñ la ni euh, je me rappelle plus de son nom. VAR laa ko defoon quoi affaire football la woon yooyu noonu Sénégal dina lii du lee. mais xam nga ñoom dañoo bëri mënoo mënoo leen jàpp seen tur yi ñoom ñëpp. Euh, voilà mais 2023 bi Mara Niasse dafa ne influenceurs yu bëri dinañ des 2023 bi. waaw xam loolu moom xam naa influenceurs yu ndaw yi la moom ñoom amuñu gàllaaj mais influenceurs yu mag yi ah dañoo doy waar de. yokk ragaloo menace yi ah. ah di ragaloo menace yi man yàlla laa gëm bu bu bu nekkoon man tamit garaawul dinaa dem loolu yàlla koy dogal mais man gëw ma yooyu quoi wax yooyu gëw ma ko vraiment. ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay